maa ngi leen di nuyu seen seen sant di leen jéggalu tamit ci retard bi waaye du dara dama amoon gan moo tax la samedi loolu moo tax euh, li ma wax xale yi dèjà wax nañ ko toujours dama di wax ñun bu ñuy dara euh, suñu yi ak am aussi rakk ñoo ngi ci biir ñoo ngi toll ne donc ñun bu ñuy xeex ñooñu la ñuy xeexal ndax ñun li ñu xeex ci politique dafa yàgg dafa bari euh, Bamba wax na ko léegi sa Seck jaar na fi am na lu mu fi defoon déjà mais bu ñu ko seetaanee noonu rek loolu mooy continuer mooy wéy yàlla def na moom dafa nekkoon doomu Thiès waa Thiès yëpp bëgg ko Thiès nag dafa nekk dëkk boo xam ne politique bu metti bi fii ndax dañuy sot Thiès mooy nit ñoo xam ne dañuy sotle seen doom Idrissa Seck biñ ko defee noonu ñun dañu ñëw xeex xeexle ko biñ ko tegee fiñ ko war a teg aussi ñëpp a ci kontaan mais malheureusement yàlla def na euh, nekkatul ci nguur gi te xeex nguur boo koy faral di def sa dëkk du avancer mukk te Thiès loolu booy xool loolu moo ko tardé donc ñuñ toog ba yàlla indil ñu Thierno Alassane Sall mu ñëw nekk doomu cees nekk ci nguur gi am aussi ndombo tànk yoo xam ne bu ñuy wax sax dañuy wax ne li ñu ko teg euh, ministère bi ñu ko jox moo ëpp ci ministère yi donc ministère bu rëy lañ ko jox kon ñun ñuy am yaakaar rek du ki rek ben nit ki lañu le xol yi bëgg né dañuy mais ties lañuy xex pour suñu ties baaxaat ndax mom ci bopam sax lool lay wax lool lay faral di wax bu fekkonté né mom kessé la euh, ndombo tank yi mu jaar yépp mën na ci tedd ay waa kërëm tedd ci macha allah mais bi mu ñëwé dafa ni man ties moma ñor mom lay xex pour ñu defaraat Thiès ndax mënumaa seetaan yeneen dëkk yi di avancé Thiès di gën a dellu ginnaaw loolu mënuma ko ñu ne ko nooy def euh, monsieur le ministre mairie bi moom moo war a euh, kii Thiès mais yoruñu mairie bi mu ne ci li ma yàlla may fas yéene naa ci jàppale waa Thiès ba keroog may jël mairie rus naa man Thierno Alassane Sall ma am lu ma war a dimbalee waa Thiès te du ba pare di ci xaar mairie du ma ko def benn jour toog nañoo ak moom di réunion ñu ne ko monsieur le ministre ñun dañoo bëgg oto oto bu ñu wëree ci pour dugg ci biir wax ak nit ñeeg yooyu mu ne ñu loolu de lu baax la ndax liggéey la waaye bu ma xoolee hôpital régional amul ambulance bu baax ma xol poste de santé yi amuñu ay garab yu ay doomi adama wara fajo damay xalaat di njëgu oto boobu bu ko jëlee jënde ko ambulance essence bo ma len ci defal ngeen di wër ties buma ko jëlee def ko ci garab yi dina am malade yu bari yu faju kéro bi mu ko waxé ñun ñëpp a suñu lool té limu wax dëgg ñu ci and ak mom di rafetlu def ndax fu ñu jaar fu nek nit ñi gërëm ko defar na ay tali xam ne des années ñi ngi koy dig ay nit defaruñ ko te ñoo yore mairie mais moom bi mu ñëwee yorul mairie dafa ni damay defar tali ñuy wax caniveau yi ci biir Thiès Thiès quartier yu bëri dañ doon de nit ñi di ko jooy fu mu déggee jooy yi mu ne daa dem seeti ko bu demee bu leen diggee ne leen dinaa ñëw defar ko ñooñu duñ ko gëm parce que dañuy wax ne ay nit jaar nañ fi jaaraat fi mais li ñu la li ngeen ñu wax rek loolu lañ ñu wax ñu toog même pas une semaine ñu ñëw defaral leen affaire bi jaaxal leen ñu dem yeneen gox ñooñu di jooy ndox bi mu leen ne dinaa leen indil ndox mënuñu ko gëm ñu toog une semaine ñu gas ñu ne ah yàgg nañ ñoo gasal di ko suul même pas une semaine ñu ñëw xëccal leen ndox ñoo ñu ñëw di ko gërëm mu ne leen nag man dama dëkk Thiès dama juddoo Thiès yaroo fi màgge fi jànge fi dëkk fi xooluma sama koñ walla feneen dama bëgg cees mu développé te lii moo koy def duma ci xaar kenn